liggéey bi nag xam ngeen ne fii mooy stade ba woon stade bu njëkk ba nga xam ne fii lañ nekkoon doon fi football ay jamono yi nga xamante ne bii boo a jaar fi yuuxu yi da nga yéemu ci yàlla waaye nag xam ngeen ne fii loolu yëllu fi ndax fi de sëñ Tuubaa gënee jamono boo taxee di ko gis fii la borom saam tëdd ak sëñ Masoobe sëñ Masoobe e, fii daal mooy pàkk boo xam ne fii la Serigne Touba nekkoon ak way juróom xam ngeen ne. E, kon nag fii li fi yàlla mooy lii fi Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg te sant ko sëñ Cheikh jëmm ndax dafa waxoon sëriñ bi depuis daaw bi nga xam ne laaj na barab bi ba jox ko mën nañ koo ko soppil daara def fi jàkka e, sant ko sëñ Cheikh jëmm nag Baay Faal yëpp àndandoo di fi xëy. biñ demee nag ba daaw xam ngeen ne eh, sëriñ bi moo ñu waxoon nañ ko tegandi te déglu ndigal sëriñ bi moo ñu santaat ngir ñu tàmbaliwaat ko tey àllarba ji tey ñoo ngi xaar sax nag fii ñuy waxee yéen sëriñ Basiru moom sëriñ Abdou Khadir wax nañ ne war na fee ñëw léegi waaye nag eh, njabootu sëriñ bépp ngi fi nag njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mboolem fukki buntu kër ak ñaari seex Ibrahima Fall yëpp nag ba daaru xafoor ñoo ngi fi dal yi ngay gis yëpp njabootu Cheikh Fall ñëpp a wuy si daal ci liggéey bu tedd bi eh, Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue ak Serigne Saliou Fat Saw ak Serigne Cheikh Assou Ndiaye nag ñoo fi teewal Serigne Cheikh jëmm ndax Serigne bi it eh, xam ngeen ne moom moo ngi santaane liggéey ba pare ànd kook njaboot gi yëpp ñëpp la woo ñu ñëw wuy si ko liggéey bu tedd bi nag dañoo xëyee nag tey Eh, defar dal yi nga xam ne moo wër kër gi nga xam ne fi la ñu war dal ngir àggale ngir ne ci liggéey bi ñu defaree dal yi ba noppi nag ne woon di sëkk fondation yi nga xam moom lañ ci bawoon tey moom la ñuy sëkk nii ngay ngeen gis nii gis nga lii ma yaanoon nii suuf la war a dem ci sëkk bi eh, boobaag léegi tamit nag kilifa yëpp a ngi ñëw xam naa nag fii yëpp ngay gis ay bâtiment fer rek dañuy tracé waat bâtiment yi pour yeggalewaat liggéey bi tey daal la tàmbali bi njaboot jëpp ñëw nañ ferrailleur yaa ngi nii gis ngeen ñi nga xam ne ñi ngi wàcce baas yi pour dal defar dal yi ciment baa ngi nii di yegg si mool yaa ngi nii tege euh, bu ko defee nag taalibe yëpp a ngi fi tam nag ñu am yéene liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ndax mañ bàyyi xel na ci koor gi lañ génn nii ndog yi nañ ko sëñ bi sante woon noonu lañ ko jëfee tey am ci ngërëmal sëñ Muntaxa itam ndax ngërëm li ñëw na ci sëñ Cheikh jëm wàcc ci Baye Fall yëpp bi ngi waajal tabaski itam ndax xari tabaski xam ngeen lool sax am ngeen ci lu la leer ndax saa bu xar yi ñëwee sëñ Cheikh jëmb ñu yabal ngir ñu ñëw indil leen ko ci daara ji fa fa lañ koy sëñ Muntaxa daf ñu yabal ngir ñu ñëw indi ko ci daara ji fa lañ koy denc